xam nga yàlla dafa wax yonent bi secret bi nekk ci lu tax waa aljanna duñu xuloo mu ni ko nit ñi kenn ku ne def naa ci sa dënd benn piil bu nga xam ni su yëngoo rekk nga yëngu daa ca dem ba saaga daa ca dem ba jël yet dóor daa ca dem ba jël paaka daa ca dem ba jël fetal fetal maa ko def ci dënnu nit duma ko dindi lu dul bés bi muy dugg ci aljanna Cheikh El Hadj Malick ni nag solution am na mooy nanu xare piil boobu rek rey ko ah. nanu xareek moom rey ko bu ko defee jàmm ja ca àjjana nekk di ci àdduna waaw wa nazana ma fi sudurihim min xill min xill maa ko rocci lii bañ nit ci nit lii bañ nit ci nit nit ki nga bokkal bokk ak moom deret bokk ak moom jom xëy bañ ko nee na loolu tuutiwul bu ñu ko dindiwul nit du xaj aljanna Maodo nag ni nanu ko dindi fii ndax ku ne mën nga dellu sopp sa mbokk waaw ah, nu jëkk yàlla nu jëkk ko boo léegi bu ko dee dindi fekk reyoon nanu ko ba noppi waaw waaw mhm. ونزعنا ما في صدورهم من غل وخن آه. وما كرتشي واو واو لا دان ورال ساغا جام باك يت ما كرتشي والله بو دوغون رك ادونا توكي واو اها ما كرتشي ونزعنا ما في صدورهم من غل واو ndax xale ba dafa ne papaam dimb nga dàq tey rafetuloo góor gëni bàyyi naa mer waaw ndax démb ba dafa nekkoon ci jàmm mook xale bi ñuy fo tey mu xuloo keneen ñaaw lool xale bi nu ko démb nga dàqoon waaw ah.